mën leen a dalalaat ci beneen xibaari suba gi bàyyi ko fii ci Sahel Network TV di wax ne tey la ñaar fukki fan ak ñaar ci tubaab bu nekk di april 2020 ñu indil leen li gën a fës ci boppi xibaar yi. takk der bi ñu xamee leen ci Gambia Armed Forces ñoom nag dàq nañ fukk ci seeni soldaar yi juróomi nit ñi nga xam ne dañ leen beroon jamono ji bàyyi nañ leen. kooku ñuy wax Sonko moom nag mu ngi am xëccante wax gu moo def ak UDP gàpp seen njiit bi moom nag mu ngi am kàddu yoo xam ne mu ngi koy gaaral jëmale ko ci réewi China mbokk yi may leen tuuti rek ñu ñëw ak yéen ci wàllu yaatal. coronavirus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. make sure you wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. ñu yaatalal leen takk der bi ci biir réew mi ki nga xam ne mooy yor seen kàddu ñoo xamee ko ci Major Lamine Sagnang moom nag wax na ne fukk ci eh, takk der bi ne dàq nañ leen ci seeni liggéey lu ko waral mooy dañ tekk daan ci seen kaw ne dañ doon njuuj njaaj juróom nag ñu ngi bàyyeekoo ci néevi bi te soo déggee néevi bi rek mooy takk der bi nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllu géej gi ñeneen ñi ci des nag ñoom ñi leen jàpp ñu ngi leen jàppee foofa ca yoon yooni Sénégambie ba nga xam ne ñi leen dàpp jàpp dafa bokk ci takkadeer bi ñu ñoo ooyee police anti ñoo leen jàpp borom kër yi bunti wérgu yaram bi ñu toftal ko ci jëwrin bi ñu xamee ko ci Moustapha Biteye moom nag xam leen na ni juróomi nit yoo xam ne dañ leen beroon doon seet ci ñoom jàngoro bi ñoo wax Covid 19 ne bàyyi nañ leen ci jële jamono. ba léegi rek mu ngi weele di wax ne réew mi fu ñu toll nii am nañ juróom ñeneen fukki nit yoo xamante ne nii ñu ngi leen ber waaye nag bu ñu xayma lim bi nga xam ne moom lañ bindu toll na ci ñetti téeméer fanweer ak ñaar ne ñooñu seet nañ seeni mbir waaye gis nañ ne gannaaw bu ñu seetee seeni mbir fukki nit rek ñoom ñoo ci amoon jàngoro bi ñaar téeméer juróom fukki nit jamono ji ñoom jeexal nañ foofu nga xam ne dañ leen beroon bu ñu seetee ba tey ñetti téeméer juróom-ñaar fukk ak ñetta jamono ji ñu ngi wër di leen seet ngir indi leen seet seen wérgu yaram kooku di borom kër yi ci euh, Brikama Area Council ñu xamee ko ci euh, Sirifo Sonko moom nag jamono jii mu ngi am xëccante wax goo xam ne mu ngi ko def ak parti bi nga xam ne moom la bokk muy UDP gannaaw bi nga xamee ne dañ ko bindal bataaxal ne na bàyyi li nga xam ne moom mooy liggéey bi ba léegi rek mu ngi wéyale di wax ne moom sonko ne lettre bi nga xam ne la ko waa udp bind mom dal nanguwu ko tey nanguwu ko élec te bu ñu seetloo lettre boobu mu ngi ci jot ni ki weeri maaj ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mu ngi wax ne nag dëgg-dëgg moom weddi lépp loo xam ne daal nañ ko ci kawam ne moom dafa bëggoon won parti bi gannaaw ba léegi rek mu ngi wéyale di wax ne moom ba muy bokk ci parti bi buñ ko seetloo wala ñu xayma ko euh, war naa toll ci ñaar fukki at ak ñeneent ni ci la bokk ci parti bi ñoo wax UDP waaye daal li nga xam ne loolu la parti bi euh, xalaat ne dañ ko tëral ci gannaawam mu ne moom daal d'accordul ci loolu Betul, tey rek moom sonko mu ngi wax ne dina continuer di doon borom këri brikama erie kansul ndax te moom day nit ñi ko tànn te mu ngi ñaan nag ñi nga xam ne ñoom parti bi ne nañu jox askan bi seeni cër gannaaw bi nga xamee ne ñoom ñoo fa tekk ki nga xam ne moom mooy parti bu ñoo wax gambia action party muy gap. ñoo xamee ko ci Moussa bacc li moom nag mu ngi oo nguuri Gambia ak mbootaay bi ñuy wax African Union nga xam ne ñoom ñoo umba tundi africa ne daal lépp loo xam ne doxoon na seen diggante ak réew yi China ne nañ ko dog ngir lan ngir Gambien yi nga xam ne ak doomi african yi nga xam ne ñu ngi leen a naxaral foofale te ñi koy def mooy seen euh, takkadeer ga foofale ba tey rek mu ngay wéyale di wax ne ñi nga xam ne ñoom ñooy njiiti africa yi buñ di seetaan seen nit ñi ñu di leen toroxal yenn façon yi toroxal yi rawatina foofu ca réew yi China niñ leen toroxalee mu ne loolu ñaaw na torop ba léegi rek ki nga xam ne moom moo jëwriñ la ñu ngi ko tabb foofu ca réew yi China nga xam ne moom moo yor wàllu bitim réew ba moom nag mu ngi weddi tuuma yi nga xam ne ne ñu ngi koy teg ci seen i der ne ñoom daal ñu ngi métital njabooti doomi africaine yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoom day mu ne li ñoo def rek moom mooy leen dañ bëgg aar seen réew ñuy wax coronavirus. mbokk yi loolu mooy woon xibaar yi tey bàyyi ko fii ci Sahel Network TV ñu santi leen gërëm leen di leen fàttali ne Banjawaali Mbay la Banjul Gambia jërë ngeen jëf.